te ñun nag ñi nga xam ne dañ ne tudd di tudd Baye Cheikh Ndao dañoo war a xam ne ay Baye dëgg la ñu war a doon kenn duñu ñu war a gis di naat table luñu doon te lii taxa doon Baye Fall dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy gëstu suñu maam Cheikh Ndao li fi daan doxale ñu koy gis suñu bàyyi ànd ak moom daan ko doxal ñu koy roy suñu kem kàttan te loolu mooy liggéey jox sa lépp Cheikh Ibra te fonk àddiya ndax koo xam ne kii kat kenn julli loowu la kenn wóor loowu la sàkk looluñ la asaka liggéey jox sëñ Tuubaa mu liggéeyal yàlla te buntu sëñ Tuubaa mooy maam Cheikh Ibra loola kenn waru koo am di ko sàggane donc ni ko sëñ Mamour waxe léegi moo fi dig jaamu yàlla léegi te bañ a topp ñi nga xam dañ naan xiili xaalaa xii la ndax dem ci naar yi xam tuuti ci as araab rek bëgg ñëw tàngal nit ñi ndax ñooñu ku leen di déglu moom li seen pexe yëpp yëpp yëpp mooy tariixa dootu am ci Sénégal ndax koo wax ñu ñu ne biddaa la walla ñu ne kenn xamul la léeg-léeg ma am yu ma ci xelmate ci vidéo yi ci ci ci YouTube yooyu na ngeen koy moytu di ko xool sax far te xam nag képp ku fi romb Cheikh Ibra foo mën a jublu man de jàpp naa ne dangay réer rek yal na ci yàlla musal yal mm-hmm. na yàlla dafay taalibe sàmmal ñu sunu taalibe ah di yëkkati sama ziar nag ziare sët yëpp di ko ko ci loxol sëñ am ni Moustapha Ndaw mi nga xam ne moo moom lañ fiy xoole bàyyi sax ndaw mu jottali ziare boobu njabootu maam Cheikh Ibra gi fi teew yëpp ak njabootu gi fi teewut it ñu ngi koy wax nañu jottalal suñu ziar ak suñu nuyoo foofu ak sàkku seen ñaan ba lii ñuy def ñu ko fi gën di man te lu baax liñ ciy wut yàlla defal ñu ci lu kawe suñu njort loolu laa yaakaar ne war naa ko fàttaliwaat sama moromi taalibe yi ak ñi nga am na ñi ay sët lañu bàyyi sax ndaw doon seen maam loolu maa ngi leen koy fàttali te xam ne nag loolu man ci laay góorgóorlu ca nekk te loolu laay sant ñëpp ñu ne ca soxlawuñu xaalis soxlawuñu or nekk leen ci njub liggéey fonk Cheikh Ibra nangoo joxe àddiya loolu bu ngeen ci nekkee mm, sëñ Amady Moussa Ndaw mii dina bëgg sëñ Fallou dina bëgg képp ku taq ci Baay Cheikh Ndaw dina bëgg te maam Cheikh Ibra dina bëgg ci ñun ndax loolu lañ nekkoon ak ñun ba dem te nag sëñ Mbay Jaxate wax na ko ku la jiiña tëb sang nga dof nag banaa xu xamal yow ne dangaa dof doo benn kat waaw te bala ngaa mën a doonub sang dangaa dem ba Cheikh Ibra gërëm la walla Sëñ Tuubaa gërëm la ngay soog ngay soog a mën a doonub sang ñun nag suñ lépp jox nañ ko Cheikh Ibra te fas yéewu nu ñoo dëpp fas yéewu ñoo daay duñu dëpp duñu dellu ginnaaw Cheikh Ibra rek hmm. kon maa ngi ñaan ci barke maam am barke maam Cheikh Ndaw képp ku fi ñëw loo mënoon ren ji yàlla na nga mën junneem déwén te yàlla nañ ko fekkee ay déwéni déwéni déwén te saa bu ñëwee gën a neex gën a rafet maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ni ma leen waxee nag boo nekkee ki ay afisu alxuraan ak i boromi xam-xam da ngay mën a wedam doo mën a doo mën a wax loolu moo tax maa ngi koy yemale foofu di leen jéggulu lu ci dëng ci wax ji nga xam ne sama matadi la lu ci xaw a niru lu jubit ngeen am ne yërëmale sunu borom la rek ak barke borom guddi gi kon maa ngi leen di ziar bu baax di mu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell ci lislaam mu ngi assalaamu aleykum wa rahmatullah barakaatu di ñaanal bu baax sëriñ Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Abdou Bassir ak yàgg ak wér defal ko sëriñ Cheikh Jëmb Fall ak mboolem njabootu maam Cheikh Fall gépp di nuyu mboolem ku teew ci bas bi di ko tàmbalee ci sunu kilifa yu tedd yi toog te ngi di leen xoole sëriñ Touba Seexul Xadim di leen jox seen wàccuwaay bi leen seen maam jox di leen ñaanal yàgg ak wér di siyaare bu baax njabootu maam Cheikh Raye gi fi teew ak seex si ak bokk yeeg ñépp di yëkkati nag ay kàddu yoo xam ne daa bàyyi koo ci sunu kilifa jaar ci suñu kilifa wàcc ci ñun kon mu mel ni lantinoor rek lañ ci ñoom ñi nga xamante ne nag yëkkati nañ kàddu yi ñoom mat nañu lu cay manqué rek ci nun lay dese waaye ñoom matale nañ muy kàddu gi bàyyikoo ci sëriñ Amdi Fall moom Mamoudou Mbenda Fall innama charayma fall ngeen cërale ko cër bu solo ci bis bi bis bi sori ci moom lool rëy ci moom lool mu fonk lool xolam sedd ci lool ba tax mu mu jël délégation bu am solo yebal leen ci bis bi ngir moom day teew na ci baas ndax xolam teew na teyit ndaw lu ne jëmmi ka ko yónni rek la teewal waaye ndokk bi nga xamante ne ki jiite bi mate na ko sëkk di sëriñ Cheikh Fall Baye Fall Mbacke Fall moom sëñ Modou Mbend ànd ak ay rakkam euh, Serigne Ngunda Fall moom sëñ Mbacke Modou Mbend den ak moom noonu sëriñ Gunda Faalit moom sëriñ Amdi Fall teew noonu dend ak sëriñ bi sëriñ Khalifa Faalit bokk ci délégation bi ñëw di doomi sëriñ Modou Mbenda waaye soxna Aminte Faalit bintu sëriñ Amdi Fall im sëriñ Modou Mbenda moom itam teew nii ànd ak délégation bi ak njaboot gi yëpp ak waa kër gi yëpp sëriñ bi ngi nuyu nag kilifa yi nga xam ne ñoom nañ fi fekk tàmbalee ko ci baay Mbaye Ndaw mi nga xam ne moo fi nekkal maam Babacar Ndaw wàcce ko ci sëriñ am Amdi Moustapha Ndaw mi nga xam ne moo fi teew jataayu Baye Cheikh Ndaw ak mboolem ay doomam ak mboolem ay sëtam di nuyu baax waa daayira bi yépp waaye di ci jiitalit Serigne Cheikh Gaye mi nga xam ne moo nekk seen kanam ànd ak ay rakkam ak mboolem ñu leen jàppe ci bis bi ak mboolem seeti Baye Cheikh Ndaw yëpp sëriñ baa ngi leen di nuyu mi ngi leen di sant mi ngeen di gërëm mu ngeen di xamal ne lii ngeen def ah, ni ko sëñ Mamoun waxee léegi rek da ngeen a delloo buum ca booy booy ba ndax diggante ah, maam Babacar Ndaw ak mam Cheikh Ibra waaye diggante mam babakar Ndaw ak mam Modou Fall Mbenda ngeen top lola di wër Cheikh Ibra gi di ko ba jël bis bu toll ni bis bi dara jale ko si amni Modou Mbenda kon serigne mi nee yalla Cheikh Rafal fayrim leen nee na lu ngeen ci sentu rek yalla ngeen ci am lu koy sen jort yalla jappale len ak kep ku len jappale ci bis bi sëriñ bi xolam sedd na lool am na mbégte lool ndax lii ngeen def daa doon cosaan ca ku xam ku ne danga xam ne bis bi war na ndax bii gi rek maa ngi koy wax sëñ Mamoun ma ne ko soxna Mbenda Fall mi nga xam ne moom moom meññ sëñ Modou Fall Mbenda day bokk maam Babacar Ndaw ca Ndar soxna Mbenda moom mi nag yàlla dogal mu nekkoon ci loxo yi ku ñuy wax jéeri joor ndee la bi nga xamee ne jéeri joor ndee yor na ko waaye suñ boroom yàlla dogalut moom fag leer Demba War Sàll wax ne sama jigéen ba ca jéeri joor ndeel te am fa aw jiw dama koy jëli ay bokkam yépp ànd na ko soo demee kër jéeri di jëli soxna Mbenda Fall am néewee ñëw waaye bakkan du desiwaat dereeti garmi ji daal di koy jàpp mu takk fasam bi mu dikkee ba ndànd fekk fa maam Cheikh ma Fall mu ne ko demb foo jëm mu ne ko sama jigéen ba ca jiiri joon dere lay jëli mu ne ko yow de soo demee dim néew waaye xaar mu ma ñëw maam Cheikh dugg ci néegam génn am mbubb daal di ko jox demb waar ne ko sol ko dem te ñëw ba mu solee mum ma dem jéer yi gis ko mu ñëw da ko ne Demba jël sëb jigéen jërul faat bakkan jëlal yóbbu kon daam luñ doon ci moom loole nag ak bokk la ab taxawaay la pas-pas la bi mu ñëwee ba ndàndit Cheikh Ibra da ko ne te nga koo bàyyi fii jox ma ko ma defal la ci benn bu gën fukk mu ne ko xam naa ne Fall man nga ko waaye baal ma yóbbu ko ba saa bokk gis ko ma dikkaat jox la ko daal koy yóbbu ndar jox ko maam Cheikh Ibra ndar googee fa la sëñ Moodu Mbend mi gën a àdduna kon loolu daa doon loo xam ne dafa yàgg du tey kon sëñ bi ne na xolam sedd na guy xolam sedd na lool. li ngeen jëfit rafet na lool nee na mi ngi di ñaanal ngeen yàgg ko taxawe yàgg koo man te yàlla bu ci dara lu yàq dugg nee na mi ngi ñaan ci kàttu maam Cheikh Rafal ku fi ñëw yal yàlla faj say aaju li nga xam ne moom la sëriñ bi baaxu nu nit moom rek la tëjewaat ci waxam mooy nañu sax ci taalibe sax ci njub te booloo te bennoo te yéenente jàmm te fonkante ndax ku fonkul say bokk gis ko fonki bokkam saa boo sànnee say bokk ànd ak bokki jàmbur kon sëriñ bi nee na nanu fexe ba ànd ak suñuy bokk lépp lu ñuy woote ci sëriñ bi nañ ko njëkk ci suñuy bokk ànd na ñoom ngir yàlla te bàyyi fa kastar as ak yàq waaju baax loolu lépp sëriñ baa ngi koy dénkaane ndax lool loolu la warlu ak nun kon nee na ko fi teew rek loolu nag ko yóbbaale mu di yóbbal Cheikh Ibra na lépp yoon wet seen di Xadi Fall daa waxoon ne yoon yi xamut maay doomi diw ab dox la xam wasalaamaaleykum wa rahmatullah mu mel ni li ñu bëgg a leeral tuuti rek doog a jox sëñ bi kàddu gi mooy ndonga bàttal moomu benn jigéen la ko yàlla dénkoon muy soxna Sukay ñu jox ko maam Babacar Ndaw mu am ci sërif am ci badara am ci xadi màngara yaakaar naa bàjjen xadi màngara moomu maam Babacar togg na ko jox ko sëñ Modou Fall Mbenda comme ni nga ko waxee woon kon loolu jaxasoo gi dugg na foofu waaye li ci gën a yéeme bi yàlla dogalee sunu maam bàjjen su koy wàcc liggéey mu nekkon jamono bo xamne ne jamono bu yàgg la bo xamne ne warukaay yombut mam babakar ñew ci chamagnam di mong ndonga batal ne ko yow re sa jigen ba daa wàcc te samam xel de dafa nekkon ci yobugo Touba ndonga naat ne ko ah Touba da yombuta dem ndax amul kay kon ten ko yóbbu fii ci barsak mam babakar ne dënn ba ci yàgg ne ko lol de sama ngor mayuma fofu nak jigen ñi am nan fi lu am solo lu war a jàng mu ne soxna su koy faal mii de lim ma sëyal lim ma ji ci taraanga ak ngor sama ngor mayu mu mukk moo ko fi jenc dama ko yóbbu ba Touba mu ne ko ah loolu de dina jafe ndax warukaay amut mu ne ko bu ma ko dee yenn di ko yóbbu Touba dinaa ko yenn di ko yóbbu tuubaa wax nañ ne noonu la def dafa jël ay taalibe ñu ko yenu di wàcce di yenu di wàcce ba yóbbu ko Touba denc ko fa kooku nag yaakaar naa soxna sa la ko jaral ñoo ñi ay waa ay ña nga xam ne meññ na leen yaakaar naa bu nu góorgóorloo yaakaar naa lu nu somb daan ko am te lépp lu nu dugg dañ ci génn ñooñu nag ñooy wa njabootu Baye Serif Ndaw gi nga xam ne ñoom nañ dara jaale bis bi mu bokk ak Baye Badara mi ni jooyte noppeegu nday ak Baye ak bàjjen Xadi Màngara loolu lan waxoon nañ ko leeral euh, jox nag euh, Sëriñ Fàllu moom soxna Mbeen moom euh, sunu badjen khadi mangara mo jël kàddu sëriñ fàllu alaykum wa rahmatullah bismillahi rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bàkke borom tuwa bàkke borom tuwa bàkke borom tuwa dole mam Sidi ibrahim Fall ñoo ngi siyaare mbokk taalibe yi fi teew yépp ni jiital ci siyaar bi sëriñ Touba sëriñ Muntaxa Mbàkke xaadim rasul di ko ñaanal lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ Touba maamam ja moo defee ko ni mu ko bëggee bi baraka maam Cheikh Ibrahima di ko ñaanal maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Cheikh Jëmb Fall ba lépp lu mu yéenee liggéeyal maamam ja Cheikh Ibrahima Fall mu defee ko ni mu ko bëggee bi baraka maam Cheikh Ibrahima Fall di ziar waa kër sëriñ Babacar Ndaw yi fi teew yépp ki nga xam ne moo moo fi nekkal di Serigne Babacar Ndaw di xalifa sëriñ baabakar Ndaw ñu ko ñaanal sama borom yàggal ko fi moom liggéey lépp lu ko yéenee liggéeyal barakati maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal Serigne Amdi Moustapha Ndaw xalifa Baay Cheikh Ndaw ba mu yéen mu yéenee Ndaw yëpp mu liggéeyal ko ni mu ko bëggee barakati maam Cheikh Ibrahima Fall. di ko ñaanal Serigne Fallou Ndaw mi nga xam ne moo fi nekkal maam Serif Ndaw mu liggéeyal maam Serif Ndaw ni mu ko bëggee barakati maam Cheikh Ibrahima Fall. di santaat bu baax ak nuyoo waa kër Serigne Babacar Fall. ak waa kër Serigne Ndongo Battal Fall ñi nga xamee na teew fii ci jotaay bi bis bi ñi xamee ne dara jàll yin ko waa kër maam Serif Ndaw ñu am contentement bu baax ak cofeel gi nga xamee ne noonu ngeen ko defee ci bis bi ànd nañ ceeg waa kër Serigne Badara Ndaw ci njiital Serigne Cheikh Fall Ndaw ànd na rek waa kër soxna Xari Ndaw ci njiital soxna benn Fall Aliou ak waa kër sëriñ Talla Ndaw di sant bu baax a baax ndax bis bisub Baay Seex Ndaw boo na ko tuddee Serigne Serif Ndaw wàcc ngeen ndax maam Cheikh Ibrahima Fall. la mu defal Serigne Babacar Ndaw ba waral Serigne Babacar Ndaw tuddee ko doom muy Ba Cheikh Ndaw da am lu xew nag loo xam ne bokku ci déedéet nañ ko ci génnee Cheikh Rafal tilimut avant d'être Baye Fall sëriñ bi il faut être noble la signification du Baye Fallisme se dirige vers la noblesse du mouridisme <laughs> Cheikh Ibra kenn xamut li mu doon te it na mu jubbulee jaam ñëpp mooy lim doon def si lim doon def si daa nuróog ak xaru fu Cheikh Ibra dëkk Kajoor fu sëñ Bamba feeñ Bawol nga jógee sëb dëkk bàyyi saw ñooñ ak say mbokk dugg ci mbokki jàmbur ci xeeti jàmbur xamuñu la xamoo leen xamuñu foo jógee askanoo woo ci seen biir nga ñëw fekk ci fa askanoo jàmbur bu bàyyi waxee kenn dootut ŋaang bu mag jiitoo ñëpp jóg topp ci nga xàjjal leen ci seen biir semp ci kenn magu ci teg leen teg ko ci seen kanam ne leen yéen ñëpp moom ngeen war a topp ñu ngaf nu fi nga ne leen déedéet kaay leen ñëw nga ne leen du ngeen leen toppee li leen neex déedéet ci li ma neex nga leen di toppee ba am li ngeen ci am ñoom ñëpp déggal la ba tey kenn ku nekk am ci li nga ci am ku dul maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Cheikh Chérif bu soo koo def ci àdduna waaye mu am ñoom lu mu ñëw tëralal nu ko nees di toppee sëriñ gis nga man duma sarax Baay Faal bu tilim man sëriñ bi ki ma gën a bañ ci àdduna mooy kiy tëggoo Cheikh Ibra fëgg sëb dën te tilim ki ma gën a bañ ci àdduna mooy li xew léegi li xew léegi nag moo sànq doomi aadama yi nga xam ne seenu làmmiñ du jóg ci ñàngi maam Cheikh Ibrahima Fall te nee na woon adoom muñ leen te xam ne da dégg lu ne ndax man Ibra Fall day dégg naa lu ne lu dul ma ngay nàmpal waxees na ma ko te danoo xam ne doom góor du nàmpal dégg ko daan aa ah doom lii ma leen jàngal ci yoonu sëñ Bamba wii day maa leen ko jàngal waaye man yàllaa ma ko jàngal dégg nga Cheikh nee na keroog ma ànd ak Makhtar Touré ak Adama Gueye Adama Gueye waaf wax ak sëñ Bamba doom ne ñokket foofee mu ne ñokket randu tuuti alayhi salaatu wasalaam danoo gëdd Seydina Jibril mu ñëw cëppeelu foofee ne cëpp raam wuti sëñ Bamba doom samay cër damm ma raam ne mu àgg nuyoo foon loxo ba ma àgg nuyoo foon loxo sëñ Bamba doom ne Seydina Jibril ne ñokket teg ma laafu ndey jooram ne ma Ibra Fall mu wuy mu ma sa borom nee na fii laay yem la ca des xam nga ko lu mu xam lu mu xam looloo jëral lijjanti lan la xam loolee mu xam ca la mën a dimbalee jaam ñi ba kenn ku nekk tey dew yaakaar na yow a du kenn bàyyi Cheikh Moudou Moussa la ëllëg ku mu tegg ci sa jëmm ji dund fii fii ci deeru duniyaa ponkal moo fi gis daraam yaatu lool ndombaam yaatu yoo sañ-sañam bari lool ëllëg nga ñëw fekk ñu koy duma nga teg ci sa bët xamal ne bàyyi bu Mourou Moussa Fall la ko tegoon moom képp la doon ngañ kenn du Cheikh Ibrahima Fall koo ko teg da koy nax ku dàq julli ci àdduna ah sëñ Bamba ndax suuf moom bu yomal xiyaamee dana seede ñépp ne ku nekk julli na ci man waaye ndox moom kenn dong lay sedd yombal xiyaamatal ak bar bàyyib sëriñ seede bi sëñ Bamba waaw xoolal ki dàq julli ci àdduna ki nga xam ne waxut dara ki julli ci àdduna toppe ko noonee tàggat ciw jaam ba kenn ku nekk am ci li nga ci am waaw kookoy kan kookoy kan jëlli naa kat Cheikh sama maam Cheikh la mu waxoon rek fii la toog maam ma péndaloo taalibeeb Cheikh Rafaal la fii la ko tàggoo màkka looy looy wax ak moom tàgg ko ñaanal ko ne ko damaa bëgg a dem Gàmbi mu ne ko loo fay wut mu ne ko damay màjjaali faal mu ne ko luy màjjaal mu ne ko di dagaan lu ma am ngir yàlla ak jëmmi rasulullah ak sëñ bamba sa sang baak sa jëmmi bopp ji indi ko te teguma ko ci fenn faal lu dul di la woon ne man lu ma am yaa ko moom ba ci bakkan bi yàllaa ko sàkk waaye yaay borom samam cheikh ne nikk ci loxo bi ne ko héehée ah doom jarut ngay wéele ne tëf ci loxo bi ne ko wéel mu dem ba muy ñibbisi mbiram duun lool mu jëndi bagage teg ko ci gaal loo co di ñibbisi ñëw ba ci digg bi gaal gi ne tàcc xar mu tiit tudd turu am cheikh góor yàlla ga ne gees gis boppam ci tefes gi saam Cheikh yëg ko fii ci makka lay lay fas loxo yi dangaa doom ana Mor Ndiaye alxuraan Mor Ndiaye alxuraan ñu ne Mor Ndiaye alxuraan kaay wuy maam Cheikh Rafal mu ne waaf ci kanamam mu ne ko yéexee eh, eh, doom sa waaja xaw ma fu mu nekk waaye xam na ne am na sëriñ xam nga naar moom daa yéeme Cheikh Chérif naaru kaw sara xam nga ñaare gi nii keroog ba leen san borom di jox san am cheikh san am cheikh da cee wax lu yéemee yéemee ba ko ñetteel mooy cheikh Modou Mbenda Fall maam yi ñii mooy li sëñ ma doon leeral naan benn bu bu mën fukk loola ba ko san am di wax fees dal la taxoon mu wax ko ba mu koy wax Demba Waar ak a doyoon waar ca yooyu jamono ba ba fees gum fees daj xool làmb gis lu dul yàlla mu dagaan ko san borom jubóo ceeg moom moo taxoon mu joxal bi euh, Demba Waar wax ko ko ba Cheikh Chérif ganee jamono it da koo tudd ba noppi faste loxo yi daal ne mag ngi ne cel mu daa ah, fekkul ku ko mat bàyyi jamono de dégg ko waaw <laughs> ah, dégg ko naaru kaw sara waaw ah, sëñ Aliou Mbawar moom da koo tudd bi ñu ko tuddee waaxu garab gu rëy gi jàkkaarloo buntu kër ga ca gànjol mu wéeru fa jàpp njàmburam mag ñu ñew waa fi mom ah mom laa ko tudde de seydina ali mom laa ko tudde de xex ba badar dom ba dar jeex takkusaan nga deggal maam cheikh xam nga de kon ku ko lim ci nit ñi joom nga de ko lim ci nit ñi ak nga joom ne xex heh badar dom ba xadar ba dar jeex takkusaan ma sonu ci sama dangunaay seydina ali rëpputal ci bir jaam dawtal ak fasam yi ba tolok man mënut ta dem fas yi dam doom mais ma ne gees jàkkaarloog moom mu may xool ma di ko xool jërëjëf nee ma koy xool mu di ma xool ba yàgg mu daal ne ma yow borom garaati yàlla yu dajale lii ci sa jëmm ji ba tax samay cër yi damm yow yaay kan nee ma koy bëgg a tontu sans borom ne ma Ibra Faal ne ma wuy ci baatin mu ne ma yëkkatil sa mbaggum day joor nee ma ne nii sa mbaggum day joor mu gis ñu bind ci aboori jàllulee ne mu ne cëpp Cheikh Chérif mu wax ca loola mu dëgër tuuti mu teel koo gedd mu dëgër tuuti mu teel koo gedd naar toog fii ci ay jamonoom seen maam ju baax ja Serigne Cheikh Ndaw toog fii ci ay jamonoom ñu jamonoon teel nag war a liggéeyal Cheikh Rafaal dégg ko daanaa dégg seen maam ñëw sama place ñu jaay toog njuug cuur ñi ko xamut bariwut lu mu fa daan wut si ay butéel butéel ya ñoo ko ko daan téel da daan faste loxo yi te booba dara xewagut diggante moom ak saam naar Cheikh Chérif lu ñuy xam lu ñu mën a xam ndax booba ay tuut tànk la waaye daf daan wax naan éehée eh, ah doom yàlla moo mën a boole looloo tax Cheikh Rafal sama sang bu baax ba teel a xam lool ba boole ma ak Assane daal na lépp ñoo ko bokk lépp ñoo ko bokk nga firnde gi mooy keroog ba Cheikh Chérif wàcceeb liggéey ñu di ko ñaanal keemaan gam ca def ñun ñëpp ñu ngi nii kër Cheikh lañ dëkk xam nañ ko jot ñuy wax ñun ñëpp xam nañ ko loolu mooy tàggoo kon ñun ñëpp ñoo ko bokk te lu leer la ca wax daa wax ne cin la noppi na asan daa bokk ci ña koy dérélé ah damay dem de man Cheikh Ndaw maa koy yenu ji dama koy yóbbu diir su gàtt mu wàcc ko laminaas ndax Cheikh ibrahim Fall dafa santion ay keur di ko serigne ci ngir bu ñibbisee du tumuranke fu mu wàcc yàq jëf la jëk a dëkk fala am keur jëgo fa dëkk fa robina la sana moy ci bentali jëgo fa dëkk wetu keur mu sayis ci medina do ra sant ci këram gi ci Laminas Laminas plus de 4 km la won aaroon ko mën doo feen ministre ak Papa Diop mi ne ko maire Dakar ñomako wax mi ngi tambalé ci hôpital principal eum avenue Rome ba Euh, bureau premier ministre bi loolu lépp ci suufu Cheikh Ibra Fall la woon Cheikh Ibra dafa daan mbay mbayum noor yor fa daara am na ci mag ñoo xam ne falañ tarbiya fii ci ndakaaru laay wax fii pale bi nekk tey suufu Cheikh Ibrahima Fall la woon mooy Lambinaas waaye du woon pale bi rek mi ngi jàppoon optan principal ëmb avenue Roum ñëw ba société générale yooyu yëpp ci suufu Cheikh Ibra Fall la woon plus de 4 kilomètres la woon Cheikh Ibra dafa jëkk woon Cheikh Ibrahima dafa amoon àddina par woon ko gannaaw bi yàlla dogalee nag maam Cheikh wàcc foofu sëñ Touba wàcc foofu Cheikh Ibrahima teg ko ci gannaawam yóbbu ko ci këram googu ci Lambinaas fa la ko doon ganalee gannaaw su bi ci la seen bi yor wàcc dem Daaru Salaam léegi nag bi sëñ bi génnaat mooy tombé 1903 loola nag ci pexey mbaaxaan la ak la ca xewoon ñu kalaame ko du fi xaj bañ ko kalaamee ne dafay waaj ngir fetal jihaar te la ko bursin seeree la loole na sëriñ bee ma gis ca Mbàkke amul joto xeex ndax sëriñ bu seey ca yàlla taxool ba dafaa jeex li buur sin seeral sëñ tubaa tax na sëñ tubaa may na ko àjjana ëllëg te defe naa ne sax booba buur sin tuubagul ndax keroog ba sëriñ bi ne borom daarul moxti ba buur sin ne ku bëgg yàlla la kii sëriñ bii ngeen di waxal moom fetal jihaar taxu koo jóg ku bëgg yàlla la ku bëgg yonente ba as gor la ab jullit la àddina ngeen dàq te àllaaxira lay liggéeyal sëñ tubaa na gees borom daarul moxti ne ko ndax xam nga looy tonu mu ne ko tonu da mooy nga jënd juróom jaay fukk mu ne ko ëpp na ko tonu mooy nga am àddina am àllaaxira def naa ko ci bursin ak képp toq moom loolu moo moo tax bursin tey i am ak màggal ñu koy fekk ci Chine di ko màggalal te taxutoon mu joxe boppam ci jamono boobee kon sëñ Touba man loolu ba sëriñ bi wàccee nag waajal gànnaar 1903 ba mu dee 1903 gànnaar ca Cheikh Sidé Baba ba 1907 ñu jële ko fa indi ko Thièyène Jolof jële Thièyène Jolof Cheikh Abdoulahi Mbacké borom dër bi moo fa njëkk a gane jamono ca Jolof 1908 am ñu ne 1907 koroog biñ ñibbisee nag njaareem fii la Serigne Touba ci résidence fii résidence bii mooy fii ci côté mairie bi fi la wàcc moo tax yéeli manel kii wax na ko léegi sëñ sëñ sëñ sëñ Baye Modou yéeli la tubaab yi wax ne ko booba yéeli lañ ko door fal sëñ bi nee na dëkk ci néegi tabax wutal ko néegi ñax yéeli ñëw kër Baye Lay Gueye waxtaan ak Baye Laye ñu jël ay néeg sampali ko sëñ bi fee Baye Laye ci mag ñi toppoon sëñ bi dëkk njaareem xam nañ li may wax sëñ bee ko boole borom gaawaan waaye sëñ bi la àndaloon ca gànnaar fekkoon na sëñ Tuubaa gànnaar ñu sampal sëñ bi fee sëñ bi am na fa attaque lu topp door a ñibbi kër gu mag fee mu jënd pàkk bee door fu ñibbi loolu may wax 1912 la ci la sëñ Tuubaa ñibbi si fii maam Cheikh Ibrahima Fall am ndigal sëriñ bi ñibbisi waaye rek ci tënk pour wax leen jëmm jiy dugg si muy Cheikh Ibrahima Bamba mbay di jàmbaar moom mii sëñ Cheikh Ngounda Fall moo nu booleeg moom ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne ñoo ñuy liggéeyloo muy jàmbaar joo xam ne boo dee foofu ci Chicago sëñ Cheikh ndigal moo ma ne kaay kaamil tafsir bi sëñ tubaa joxoon Cheikh Ibrahima Fall mu tafsiru Jalaalayni indi na ko foofee ci yéen ca Amérique muy jàmbaar joo xamante ni bi yéeneem jëpp ak yitteem jëpp ak pas-pasam bépp mooy américain yi yi nekk foofu muy jigéen muy góor ñëpp genn maanaam koo fa gis mu doon ab jullit ci jamono boobu wax naa leen sëñ Ablaye Bambey moom ma ko tubal xam naa ci ñu bëri gis naa ko ñu bëri ñoo xam dañuy tudd yàlla di jàng ay xasida te ñëpp ay américain lañ te moo leen tuubal delloowaat dugal leen ci lislaam def leen ay murit ab liggéey bu am solo la li ko booleeg Baye Cheikh nag da koo xamoon ndax fii la dëkk ci njaarim yàlla dogal mu yëg bis bi bàyyi ko gu mag fa la ndax fan yi la fi ñëw bàyyi ko fa ndax liggéey sëñ tubaab ba nekk Amérique yëpp ci loxoom la tegu bi ñëwee na day ñëw ci bis bi barkeelu ci bis bi ndax jëmmi bàyyi seex moo ko yitteel moo ko ñor moo tax léegi lay dugg si rek ma indi ko fii ngir mu nuyoog mbooloo mi saafoonte ak ñoom waaye daal noo ngi ñaan yàlla ndax réew moom ngeen nekk am na ko fa mas a bàyyi ko ñëw nuyu fi Cheikh Ibra Fall loola nag ba ma la gisee laa xam la Cheikh Ibra doon wax ne ndekete lii la maam Cheikh na ko foo bàyyi ko mu ne ko Amérique mu ne ko yàq nga tur wa de mu ne ko ah, Fall laa ci xam de mu ne ko ah, doom ay murit ñooñu ñooy ay murit dëgg dëgg taalibey sëñ Bamba bu ñëw di dégg wolof te loola moom xam nañ ko ci sa liggéey foofee dëgg dëgg taalibey sëñ Touba bu ñëwee di dégg wolof te boo génnee fii gis nasaraan si niñ lay def boo doonee murit ngay xam ne ñii sëñ Touba leen ma waxtaan naa ca France benn tubaab boo xam ne jigéen la déggul sax li may wax ndax déggul wolof. mu wax ndiim Alioune Badara mi màndal na ko kii li muy wax dafa dugg ci sama xol te moom sax déggul wolof mu ne waaye li muy wax ci sama biir xol bi la dugg maam wax ji daf maa marqué sëñ Touba toll noonu moom dépassé na sax romb na foofu di wax ak kii wolof képp sëñ Touba àddina lay waxal ndax bi muy jëf leen toog tubaab yi làkkuti français te lu mu leen wax xam nañ ko loolu nag ndimbalal yàlla sëñ Touba programme sunu borom la loola moo waral Cheikh Ibra Fall mu naj ko ci biiram ba mu feeñ xanaa xamoon ne sëñ Touba mooy Cheikh Ibra wallaay du caaxaan Cheikh waxi Cheikh Abdou Lahad laa lay wax de sëñ Cheikh mbay Yaaram moo ma ko wax mais Cheikh laata leen dajale ci néeg koroog nanguwul sax wax ji génn xëy na nag comme moo ma ko nettali ci mbooloo te nee ma sañ nga koo nettali sañ naa koo wax Cheikh laat wooyofal na leen ko ba sañ nan koo baaxante ñun murit suñu biir waaye nee na keroog dafa maa dafa teg si Abdou Fall Cheikh Moudou Fatma ci buntu bi na ko ku santul Fall mu la romb dugg ci biir sëñ mu demiñ ñëpp ngi toog sëñ Abdou Lahad wax ni ndax xam ngeen Cheikh Rafal sëñ Touba leen boole ñu ne ko déedéet mu ne loolu laa leen bëgg a xamal tey sama borom moo sàkk àddinaam ji yabal fi nangami yonent gannaaw yonent bi salaa salaam nag yonent dootul wàcc te faw àddinaam ji yàlla dana fi tekk koy lijjanti ne na ca la ko ba mu soob ca sama borom tooga ba mu soob mu sàkk ci jëmmam teg muy Serigne Touba mu yabal àddina na ko kaay woote te ma nii nee na sëñ Touba xamal sama borom na ko waa waa kat xam na ab yonent wàcc te su ma nee di wax sama bopp amaa nañu wet kon te kon ñu alko boole maa ko ma wone nee na suñ borom sàkk ci jëmmam teg mu Cheikh Ibrahima Fall mu a jurul topp li liyee boole ñaari woy sëñ bi laa teg ca nekk dégg ci diggante bi lu ne waaye mën naa ma wàcc yàlla te lii te ko mos a dégg kon fa Cheikh sëñ Touba bàyyi ko fa la Cheikh Ibrahima Fall bàyyi ko moo tax sëñ Saliou mi am dégg ne woon ñaari jëmmu kenn ñaari jëmmu kenn sëñ ñëpp ñu fi teew yëpp ci turu délégation bi ma àndal mun nekk composé ay maire ñu ngi ci ñu ngi ñëw am na ñeneen ñu nekk ci yoon wi ak adjoint maire yi ku taay ñëw na ak euh, conseil départemental tay bu Thièye ak euh, samay xarit ak am di jàmm yi nga xam ni chaque at fii la ñëw ba mu guddi wax dëgg neex yàlla jafe <laughs> ñu fi xéewal neex des fois gars mu ma ay <laughs> reer <laughs> ba tey ngayeen yi moom am nañu benn bokk délégation bi reer moom lañuy ñuy calculer <laughs> jërëjëf donc dañoo nekkoon fële rek xam nga ci waa Baye Daara ñu ngi ñu téye lu yàgg te 6 heures ba tey ñu ngi ci te boo nekkee ci kanam doo mën a libéré wu di ci jégalu bu baax lu euh, ne def nañ ko pour ñëw bon donc te euh, yàlla def na bañ ñëw moo tax man nañuy jiitu rek ñu naxante di leen ñaan yàlla yàlla nañ fi teewaat ay déwén daaw am na fi teewoon ren newuñu fi di ñaan yàlla suñu borom bi xëy na àjjana Di feebar tëdd hôpital sunu borom bi yëkëti leen di jital nduy bi ah, ci señ Amdi di ko ñaanal sunu borom yag ko señ këram lo and ko wér alors euh, di nduy nak euh, señ Basiru Ndaw mi fi nek daw ñu daje fi vraiment di kontan lool way ak mom fi tay ak señ Cheikh Baye Fall di nuyu sang yu bax yépp tok fi leen ñaanal yalla yalla yagal señ këram lool te am leen ak wér di nuyu encore sëñ Cheikh Gueye ndax man dama naan ñun maire ak député amul solo li am solo mooy sëñ si eh, ak nekk taalibe rek ndax tey may onzième maire Diourbel waaye kër gi tey nu mu mel maire bu fi ñëw fi nga ko fekk fi nga ko bàyyi ndax yàlla moo ko def ñun defuñu ko yàlla na yàlla yàgg suñu kanam ndax nit ku baax day am sëriñ am wàcc wàccuwaayam am waay ndax nit bu amul kilifa rek lu ko neex def mbokk ba ngeen fi nekkee ba sañ ñoo def dara ngir seen jëmmee yàlla na yàlla yàgg suñu kanam maire bi yëpp day jeex may yéen du ngeen jeex mukk ancien maire dina am ancien député dina am waaye ancien maire ancien seen kenn dégg ko fenn waaye yéen rek yéen yàlla na yàlla fay ndax tey képp ku nga xam ne yàlla dalaa dénk ay ndomb yi nga xam ne ndomb àdduna rek la nga yenu ko ba xamoon li nga yoon lu mu doon boo liggéey na dañ te doo xam nooy delluwaat ci mbokk yi doo xam nooy delluwaat ci nit ñi doo xam nooy delluwaat ci doomu aadama yi ah ndokk nag bu nga nekkee taalib bi te xam taalib bi rek mooy mujj it loolu lépp da koy teg fay jël jikko taalib ji te boo ko jëlee rek sa yëpp noppal na kon yàlla na suñu borom defi taalib bi rek ndax taalib rek moom solo di leen sant bu baax di sant mbokk yi tamit di sant waa kër gi at bu ne bu ma fi ñëwee nii ngeen di nekkee ah sëñ bi de kontaan na ci mbokk yi de ndax kenn ku ne amoon na lay tey bañ a ñëw ñu ne Thiès ñu ne Dakar waaye tey bu amee mbokki senegal gépp yi ñëw dajaloo fa ngir ngir ngir li mu ñu defal ak li nga xam defal na ko lislaam defal ko yoon wi kon tey ji bu ñëpp bàyyi yëpp ñëw may meeru dëkk bi dama war a ñëw lépp fépp moo ne bàyyi ko toog sant leen bu baax ndax tey lu fi waaye def defal ko maam Cheikh mën nga ko defal kon nag maa ngi leen di gërëm leen sant dër ku dem laa naa maam Cheikh de tali bu bees bii euh, enquête naa ci mairie bi mais je pense bien que amagul tur man la bu paree de wax fi na am assainissement na am ay lampes yu moderne fii boo fa rombee mu danga fi mën a for puso te bu paree ne def ay équipement ay jardin ci wet ba mu rafet waaye maa ngi proposé kutaay mu ngi nii ñun bu ñu paree jël nañu commission pour que buñu yalla may katan ndax bo jité nit da ngay wax ndax da nga jité mbolo sama yéene moy buñu paré tali buñ ko défer ba mu rafet ñu tuddé ko mam Cheikh Ndao parce que lolu moom solo té ku dégg ma def ko it da nga xam ne li def warna ko def ndax tey àdduna moom dootu ko faté waye rafet na tamit ñu jëmmal ko la nga xam ne taaral ko taaral ba nga xam ak top te xamna bu paré top toobee daan <laughs> nañ ko dénk te du am benn problème di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekke déwén tamit yàlla nañ fi dajaate bu kenn manqué lépp luñ fi sàkku ci bisam bii ah man de suñ ngay man man gëm naa ni saa mu ñëw yokk ah, ah? waaw waaw moom fii ñëw daaw jiit meer laa ñëw ñu ne moo fii bëri yàlla waxal la neex ma ne ah naa ñëw ah député yeeg ñëw ah, ah naa député ah ren de député laa fi di ñaanal yàlla tamit euh, euh, projet yàlla na ko yàlla eggal Dame Diop tamit mi nga xam ni yàlla def na ko bërki démb Ndiaye président ni ko sant bu baax mu def ko ministre jàpp naa ne képp kuy doomu njaaram kenn ku ne yow la ko defal ndax ñoo bokk dëkk bi te man maire dëkk bi ab garabu dëkk sax bu ko nit defaree rek man jàpp naan man maal faal ma la ko defal ndox bu mu jëlee ka nga xam doomu njaarim la rawat na mu dëkk Kër Cheikh tudd Dame Diop ñu def ko ministre jàpp naa ñun ñëpp lañu ko defal di ko ñaanal yàlla yan bi ko président yen ñun njaarim yëpp la ko yenn yàlla na ko sunu boom oyofal ci barke baas bi yombalal ko liggéey bi kàttanal ko koy nag muy njariñu njaarim gépp di njariñu Sénégal ndax loolu rek moo fi am solo ku ci nekk nañ di ñaanalante rek ndax kenn ku ne la yàlla namu ci sa bopp nang ko sa morom it mënoo ci dara kon la ca am solo ku mu ko defar rek nañ koy rafetal te koy ñaanante sunu borom di ñuy jàppale bu baax en tout cas daal man maa ngi ñëw ci tur waa dëkk bépp ci di wax ci askan wi ci Zahir di leen sant di leen ñaanal di leen gërëm ci bis bii nga xam ni tey saa su ne buñ ñëwee at bu nekk biñ ñëwee day gis mu gën a ñu ngi koy nas di ko fisale université yooyu di ñaan ci barke bis bi yàlla na ko suñu borom matale ah man da lijjanti laa man ak loxo ak kii ak yéene ay ah, waaye mënuma nag <laughs> yàlla rek ku man li fi am nii sax duma ko sant sama bopp duma koy sant yàlla ak nit ñi rek duma ci dara nag ndax mënoon naa am ci ay keneen it am sama ay kon nag di sant yàlla lépp lu ñu naal ci kër Cheikh même am na centre euh, benn porte ay tubaab yi may négocier pour ay sant de santé waaye xalaat naa ko indi kër Cheikh parce que li tax ma xiis ko si kër Cheikh dafa am carte man dañ ko xaw a dañ ko yàgg néewal doole ci ñi fi jaaroon même teene yi fii sax léegi mu ngi commencé seer te bu njëkk bi dafa yomboon ndax la indi woon loolu lépp équipement yi moo fi amitoon lu ñëw rek ñu ko xalaat ko gannaaw raay man nag du politique bu ma ne ndax maire laa te kàddu meer laa fi toog sama xalaat ak sama yéene mooy ñu doolelaat kër Cheikh ba kër seex jër cëm ba mu amoon ak jëm maam Cheikh Ibra Fall jëm am ñu delloo ko ko ba mu mat sëkk yàlla na ko sunu borom kàttanal di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla jàppale waa yëpp ñëpp ku ñëw ci bis bi ku am yéeneem ku bëggoon a def ku amoon yéene la def ak ku bëggoon a def ak xalaatoon ñëw yëpp am gàllankoor yàlla na ko yàlla fay en tout cas daal vraiment tey sama xol sama yàlla may na ma kattan ba ma dugg ci baas bi su ma fi ñëwutoon tey xaw ma fu ma koy nettalee ci àdduna yéen ñi téye nag nit ñi ba ma ñëw yéen tamit ak nit ñi nangoo toog ba sama jéem jëmm ji xeebu ji ñëw toog ndax sama sang bu ñu toogee ndax man micro maire ma ko jox waaye bu doon micro fii gars yi toog laay toog fii ngeen di toog laay toog ndax fii nag dara newu ci ndax dafa neex rek ndax taalibe dara dàq ko ci àdduna waaye nag ah yàlla moo ma jox maire rek mm, santaat ci yàlla rek waaye nag delluwaat bu lépp jeex ma delluwaat ci taalibe ji rek ndax taalibe rek am solo moo ñu gënal loo gis ci addu ah man Malick Fall moom laa wax ndax tey la nga cay def mooy dem sa bàmmeel moo lay fekk ëllëg fii nag dara fii rek la yem fii rek amul benn njëriñ waaye li njëriñam ci àdduna la yam te njëriñ àdduna ak alaaxir loolu la nit di sàkku kon yàlla nañu yàlla kattanal di wàcc sama baat foofu di leen santaat di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla fey yàlla même fay yàlla ma leen fay ndax àdduna du dox mukk ba ma mën a fay waa njaarim ba àdduna du tukki gëm naa ne mënuma ko fay ndax bu ñu naan julli jumaa ja ca àll balaa daan taxaw di julli sëñ Muntaxa na ci kanam maak sama doom yi xam nga maire bu jumaa jotee day ne ci ginnaaw sëñ bi ak gouverneur a ah, moo ñëw taxaw seen ginnaaw ah lii waa njaarim la bu ma wati loon maire du ma fa taxaw wala <laughs> laay taxaw aw ma seen ah, kon nag wax ji dafa neex lool may wax rek ak yéene bi ngeen am ci man ak yitte ji rek moo tax vraiment ma wax ji xaw a gudd ci man li waaye man daaw ma wax lu gudd di leen ñaanal yàlla ak njaboot ji ñëpp ak waa kër yëpp yàlla nañu yàlla fay sama gars yi nag ñu ngi ci yoon wi moom. <laughs> ak jërëjëf <laughs> waa Ngayeen bi. wax gay mu njukkal la ci ay kàddu euh, incha allah bu ko defee bu noppee ñu jox sëriñ Ablaye Bamba mbay représentant famille sëriñ Atoumane Diop euh, nekk fële ci Amérique moom it euh, mu am ay kàddu yuñ ci feeñal. bu ko defee bu nu noppee ñu jox sunu baay sëriñ Basiiru Ndaw mu ñaan ñu dugg ci biir reer bu ko defee dellusiwaat ci baas bi mën a wëyal sëriñ Cheikh bisimilah. ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di la ci sant bu baax baax di sant ñi la àndal di ñaan yàlla li nga yéene ci dëkk bi ci lu baax yàlla kàttanal la ba nga defal defe ko nu kawee sa njoot eh, yéene ji nga am ci sunu maam it ba xalaat koo tudde mbedd moom yàlla na ko yàlla yeggale tam doon sa njiglaay toog nañ fii daaw nga wax lii nga waxoon ne ba nga fay njëkk ñëw meer nga doonoon ñu ne la ñaanal li nga bëgg nga ñaan ngay dellu si nga doon député kon kon xam nga yoon wi ren it ñëw nga fekk nañu fi yàlla nañu yàgg yàlla na nga ñu fi yàgg a fekk te loo fi ñaan rek am naa jort ne sunu borom ne yow boo fi loo fi ñaan di nga ko am fii loo fi gisut fii di nga ko gis sunu jëm ndax kër gi kërug àdduna la waaye kërug baatin la ndax Cheikh Ibra moo mel noonu sëñ Tuubaa moo ko jox àdduna jox ko àllaaxira kon lu ko fi waaye ñaan te mu te mu dugg ci yow rek ah, loo ci gisut ci àdduna yi dangay xam ne lu ñu la dencal la keroog yombal xeer kon ñoo ngi lay sant bu baax di sant ñi lay jàppale sa liggéey di gërëm liggéey bi nga fi def di ñaan yàlla nga gën koo man gën gën fi liggéey leneen lu raw loolu tam doon suñu njiglaay ñun ñëpp suñu xol sedd na kon ci turu sët yëpp maa ngi lay sant di la sant ci turu xalifa yi tàmbalee ko ci sëñ Mbay Ndaw mi fi nekkal sëñ Maam Babacar Ndaw jàpp sëñ Amdi ak sëñ Fàllu ñoom ñëpp ci seen tur maa ngi lay sant di la gërëm di leen ñaanal yàlla yeneeni succès waaw ah, ci barke Maam Cheikh Ibra Fall barke Xaadimu Rasulullah ginnaaw loolu it xam naa ne reer bi moom lu la ñor la ndax bi nga ñëwee moom nga njëkk wax kon maa ngi jox ndigal soxna Faat Ndaw lu ngeen ko mën a wutal nag na ci ñebbe ju bari bokk ndax ab paaleen la te duñ doyal ñebbe maanaam bis bi ci ñun dafay bis bu am solo ci ñun ndax biñ nekkee ay xaleel du ma wax sax ay tuut tànk booba duñ ko waxee noonu xaleel lañu ci booba dañ daan def fu bàyyi Cheikh Ndaw di dem ñu topp ci ginnaawam fekkee lu bare bare bare bare bari loo xam ne def na ko fi suñ kanam ba ci kayit yooyu mu xam ne daf ko daan wecceeku ci daal ci bind waan siral xalqi wa rasaaya wal jinna wa seytaana wal balaaya moo tax euh, bis bi ñëw fii ah ñëwal fi nag maanaam it euh, mbokkam di xaritam di léppam muy Cheikh Atoumane Diop Cheikh Atoumane Diop moo jur sama yaay euh, ñun nag dañoo féete wàllu Amérique nekk dafa nekkit ku dee daayira Touba Chicago ñun ñooy jëwriñ jë ñooy jëwriñ jë fii nag andi nañ fii ay américains yu bëree bëri yoo xam ne dañuy jógee Amérique euh, defar dañ fayit ay kuréel yoo xam ne dañuy jiite américains ñooy jàng boo demee ci YouTube da nga fa fekk muy jàng yu am solo njàng moo set euh, ñu def fa tudde ko American Murid Daara American Murid Daara euh, nu ñu ko tuddee mooy daara joo xam ne ay américain donc ñoo ca nekk ca di murit euh, ba sax sama soxna ñu koy wax Seynabou mbay moom moo nekkoon jëwriñ yi daara ja américain la woon cent pour cent d'origine mais bi nga xamante bi ne moom ñi ngi fi nekk dara wax naan man de bu ma faatoo bëgguma ñu suul ma fépp foo xam ne ab tubaab dafay nekk bëggumaa diggante ak ñoom ba keroog bi mu faatoo fii laa ko indi ci njaareem yu bari jàppoon ne mënta nekk waaye booy liggéeyal sëriñ Touba bu sëriñ Touba nangu sab liggéey loo bëgg mu fekk la ci li bëggoon sëriñ Touba la ko ca fekk si ku bëggoon maam Cheikh Rafal bind na ci lu bari lu bari la bind ci sëriñ Touba ak maam Cheikh Rafal moom soxna Seyna bu Mbay alxuraan dana ko bind daana ci bind lu bari waaw ci maa ko jàngal ak yëpp ah kon nag maanaam loolu tamit euh, mën na ne ndamal njaareem lépp la ndaxte musta am c'est la première fois mu am ci bu mbay sa maamaat say maamaat nekk ay américain ñu jëlee la foofu indi la suul la ci jumaay armée jaarim yi loolu maanaam ci histoire musul am bi bu njëkk waaye yaakaar naa ne képp koo xam ne rek yaroo ko ci njaareem gi euh, loolu mu mébét war dañ ko cee ñaanal bu baax a baax ndax Baye Cheikh Ndaw moom Baye Cheikh Ndaw moom ñëpp la du bàyyi Cheikh Ndofam njaarim dong bàyyi Cheikh Ndofam Sénégal gépp ko xam ñépp ko xam def na lu xéewal kiraama yoone def na ko ci dëkk bi ah, man nag daanaka sax euh, damaa koo xam ne danaay bari lu may wax ci ay mbooloo nag sama sama sang faw da sànni kàddu lool waaw ànd sama mag nag moom moo toog ne ñu koy wax Serigne Madiop mbay moom euh, moo toogee ne moom tam moom it Cheikh Atoumane moo jur yi moo jur suñu yaay maa moom kon nag bis bii moom kenn ëpp leen wu ci bisu Baye Cheikh Ndaw bisu maam Cheikh Rafal bu jël sërub Cheikh Atoumane dikkee yaakaar naa ne kenn du ko le loo fi wut si ñuy ñaan nag ci barkeb maam Cheikh Rafal fii daal képp ku fi ñëw rek seen aajo faju bu baax a baax a baax a baax a baax ci fan yu gàtt it dana amaat yeneen américain yoo xam ne daaw bëggoon na euh, sëñ Cheikh Ngounda Fall day sama wëlëre di sama xarit bëggoon na sax ñu dem waxtaan daaw ci rajo Lam Fall ba boole maag sëñ sëñ sëñ Falloog ñooñu ñëpp pour ñu waroon faa dem euh, waaye suñ borom da koo jàppandalut euh, waaye amaat na ñeneen ñoo xam ne dana ñëw féeg le 14 ay américain yi war a jógee fële pour ñëw man naa am buñ amee jot gi diggante bi dana fa ñëw ñoom it ñu wax leen na daara ji demee ndaxte euh, la nga xam ne ñoo jaar ci ñun dugg ci yoon sëñ tubaab yi li ko manqué yaakaar naa quarante bariwut waaw te ñoom ñëpp ay taalibe lañ ay murit pii sax lañu loxo la ñuy lekke ci suuf la ñuy toog dañuy sujjóot dañuy xasida dañuy sikkarit koo ci woo ji ci bari nii faal ak mbàkke faal ak lu ñu jot wax ngir bëgg sëñ Touba lool lit loolu lañ fa nekkee ñun waaw boroom Touba ne sama baay li dale fii ci njaareem ba Touba dëkkuwaay la sama baay ne ko kon kat fi nga jëkk a teg sa baaram ñoom seen fi lañuy dëkk dëkk ak moom bokkoon na it ñi nga xam ne sëñ Touba yu boon ko waaw ba mu dikkee tamit dana moom sëñ Touba mooy boon soxlaa lu ma daray Touba bi Moustapha yu benn dërëm nee señ tuba ko yóbbu moko moo ko delloosi bu ngeen déggee cuuneen xombal mo cuuneen gën a woon ci xombal mom lañ tuxal si fi koko ci suñu wayur la la ko suñu borom jaarale kon nit kon manam kon kon ci njaareem ñun dañ ci bokku bu baaxa baaxa baax dañu bokku ci faal bokku ci mbakki kon nak ñi ngi ñaan rek suñu maire bi nak saa borom gën ko dolli ndombay bay tank bam nek ci président sax ndaxte yef yi nim ko waxe rek dara dara jumbul kenn sabab rek a fi nekk ki nga xam ne moo fi nekk jëwriñ ndee ku ko doon da nga ne président tey jii du ko gëm ndax ba muy jàng xamul dana ne président léegi nag dem na ba ne président ba làbbaliwaat kon it moom tamit jomb ko nañ koy ñaanal rek te mun moom bu nekkee président dana dana geesu njaareem ndaxte li mu nekk góor muy maire ñëpp xam na ne góor góor ci njaareem bu baax a baax kon nit loolu tamit lu am solo la ñu ñaanal ko moom it mu xam ne rek njaareem la am amul leen lu njaareem waaw kon it ñuy sant bu baax a baax man nag euh, sant naa teewe gi ma teewe euh, bisu Baye Cheikh Ndaw bii ba man cee sànni kàddu kon daal asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi gërëm nag sëñ Mamour mii fi ne moom damay woo ba Amérique toujours ba ci programme Cheikh Atoumane Diop bi ñu doon def damaa woo Amérique yónnee na ma lépp moom moom mënuma koo fay moom damaa bëggal boppam ci boobu sax mosuñoo gisante tey lañ mos a gisante ma ak moom. waaye jamono bu jot damay woo États-Unis ñuy waxtaan ma ak moom heure bu jot. waaw kon nag moom it mënuma koo fay te tey jii bu ma fi ñëwee tamit wax dëgg yàlla jëmmam jee tax ma ñëw fi ndax dama ko bi muy ñëw fii maa ngi ñëw njaareem su ma dikkee tamit danaa fexe ba gis la jokkoog yow ndax dañ fi màggal si Baye Cheikh Ndaw tey jii sama xel la ci yar ma woo ko mu ne ah ñun de ñu ngi ci barab bi xalaat da nga fi jéem a ñëw ma ne ko ah, lu ma jàppoon. dina ko bàyyi ci ñëw fi incha allah kon ne ma leen di xamal ne moom mii wëllëre la xarit la lépp la waaye ñu ñaan nag ci ci barkeb maam Cheikh daal guddal gàttal lu waay yaakaar daal ci sam xel ak lu waay bëgg ci sam xel soo ko ñaan ci bërëb bii suñu borom dana ko def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi di ñaanal xalifa général de Mouride sama borom yàggal ko fi lool tamay ko di ñaanal sëriñ Cheikh Jëmm Fall sama borom yàggal ko fi lool tamay ko wér ak mboolem ñi bokkal Cheikh Fall ñëpp di ñaanal suñu bunt nag ci yoon yi muy sëriñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbenda sama borom yàggal ko fi lool te mooy ko wér di sant nag bu baax a baax a baax di ñaanal suñu kilifa gi ci biir muy sëriñ Amdi Ndaw sama boroom wéral ay cëram ba li mu yéene liggéeyal waajurum wa Baye Cheikh Ndaw sama borom may ko kàttan ba mu yeggale ko Eh, di sant nak señ Bass ci kaddu yi diko ñaanal moom it sama borom may ko katan ak wër ba limu mu yéenee lépp sama borom yeggal ko kaddu yi fi dégg yépp nak kaddu yu rek la eh, di nuyu monsieur le maire mari Fall diko sant bu baax baax di gëreum ci taxawayam ci dëkk bi gis nañ ni ci taxawee ñu ngi koy rafetlu tamit bu baax a baax di ñaan sama borom jàppale ko ba li mu yéenee liggéey ci dëkk bi yëpp sama borom jàppale ko mu yeggale ko ndax euh, ba ba mu yoree maire bi ba léegi gis nañ ni mu ngi ciy góorlu ci lim man li dooleem man ak li kàtt kàttanam man kon niñ koy ñaanal moom yàlla jàppale ko ba fu mu bëgg yóbbu njaareem sama borom yeggalew fa di sant mbooloo mi fi teew ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ñun ñi fi teew ñëpp sama borom may ñu fekkee ko ay déwén déwén te kenn bañ a manqué te kenn ku ne sa déwén dàqal la sa ren comme ni ko Malick waxee rek kenn ku ci nekk na fas li mu bëgg ci bis bi sama borom defal ko ko ci barki Cheikh Fall jërë ngeen jëf sant ñëpp di gërëm ñëpp wa salaam loxo yi ñu ñaan dugg ci biir su ko defee ñu malikim di yàkk na bu yàkk na